Euh, ci ci wàllu xam-xam li nga xam ne bind na ko bàyyi fi man xawma koo xam ne mos na ko def ci dans l'histoire de l'humanité kon sëñ bi léppam xam-xam la wax bi nga xamee ne jox nañu commission bi euh, borom xam-xam yooyu yëpp daje ni nga xam ne moom la ñu def moo di tijji commission bi yaatal ko ci wàllu xam-xam euh, di def yooyu ngay wax 2011 ñu le premier colloque sur le suffisme. invité gi lu mat juróom fukki fait fet dafa ne ci àdduna si ay sommité Il mhm. fa dikk tewe ko ñu def ko fi méridien président mu réussite totale ñu répété Nous avons def ko 2014 de ko 2017 organisé aussi un ay ay forum nous bari def nañ 2016 Nous avons fait def lu lu jiitu Nous nañ aussi bien lu ñu Carrefour du Magal. bu ci defal ko Masalik nu mat ñetti fan. nga xamne dañ ko boole woon ak ay atelier yo xamne buñu xeyé dañ koy def di xalaat ci walu li nga xamanteni bobu mo mo xewon ci réew mi. maa ngi fateliku jamono yoy ci lañ doon wax affaire réforme euh, de l'éducation jamono yoy ci lañ doon wax euh, aussi affaire réforme des institutions eh, ñu bu ci nek ñu xalaat ci teunk ko xalaataale aussi ci affaire infrastructure ci biir Touba xalaat yooyu nag bu ci buñ président de la république liñ xalaatoon ci wàllu institution ak liñ ci assise de l'éducation bu ci nekk dañ ko bind tënk ko bi nga président ñëw na ñëw na Touba sëñ Bass wooñu ñu toog ak moom moom mu toog jël jël bi ko président ne ko kat lii participation Touba ci xalaat yi nga ci kon xam nga loolu am na njariñ ñàkkul ñàkkul am loo xam ne jëlee nañ ko ci parce que xalaat bu jóge tubaab bu ne xam naa ne des na ci euh, des na ci bàyyi xel bu dee bu dee colloque yi ñu fi def colloque bi def nañ ci ay téere téere yi ba tey ji mi ngi fi def nañ fi ay étude d'impact étude d'impact économique étude d'impact religieux étude d'impact social mhm. benn bu ki nekk aussi ñu mool ko def ko ay téere tasaare ko te ñi nga xam ne dañ leen invité ñu jóge bitim réew di dikk di nekk ay kàngam yu mag bu ñuy dellu téere yooyu buñ ko buñ ko yóbboo dañ koy jàngal seen étudiants yi nga xam kon am effet multiplicateur di lu am solo dugg ci université yi euh, li nga xam ne la njëkkoon def en 2010 moo di université Dakar suñ fa defee conférence ci dimension boobu ñëw fa defa ben conférence sëñ Bass toog defa un cours magistral devant tous les professeurs et les étudiants donc loolu aussi nekkoon lu am solo 2010 la Euh, booba maa ngi fàttaliku professeur Lamine Ndiaye aussi defoon na waxtaan docteur Khadim Sylla ak ñeneen ak ak ak ak ñeneen euh, loolu li mu li mu jur tey jii sëñ Axam wax na ko léegi nee na tey am na ñaar fukki universitaire ñu biir Touba di xalaat ci ëllëgu njàng mi te dafa amoon cloison boo xam ne dafa amoon am ñoo xam ne même sax dañoo jàppoon dafa am dafa am lu ñu doon xoolee màggal gi am nañu ko jàppe mm-hmm. loolu dafa daj image bi ci boppam dafa jékki-jékki renversé wu

ak famille dem mais aussi am na jeexit ci image bi nga xam ne ñenn ñi moom lañ doon xool te image boobu tey jii loola ñu raxas ko ba mu ba mu set wecc kon foog naa liggéey la boo xam ne liggéey bu am solo la boo xamante ne bii ci juróom-ñetti at yi walla fukki at yi

ñun li nga xam ne ci lañ mën a wax mooy bi mu dikkee dafa indi ab gis-gis muy vision vision boobu bu mu njëkkee toog def un discours programme lee boppam ndax boobu bëgg na mbooleem ku mu jiite wala mbooleem ku mu jëflanteel nga xam ko ndax ci lay gën a yombe wala boo jubee nga xam ne yow yaa jubal sa bopp waaye sëriñ moom wax na la mu nekk wax na li mu doon loolu dafa am solo ci nit ndax aussi nit da koy mën a takk ba mu defee loolu aussi ñu gis gis-gis bi xam ne am na ko ci wàllu xam gis-gis bi nga xam ne am na ko ci wàllu jàng ak li nga xam ne dund na ko ci nangoo toppe li nga xam ne dund na ko ci tasawuf li nga xam ne dund na ko ci ak taalibe li nga xam ne bu jëmam toogee rek mu ne cell ni mu lay ni mu lay yare mm-hmm. ni mu lay delloo ci ci sunu borom mm-hmm. nga xam ne nit ku mat ku kaamil mi ngi nii toog ñu ko ñaanal mu yàgg fi euh, kon loolu yi moom ñun suñu doxalin mënta génn li nga xam ne mooy cadre sëriñ bi ci biir liggéey bi nga xam ne ñu ko def ci màggal gi moo tax mem documentaire yu bari ñu ngi koy defar am na ci boo xam ne dañuy wax jëmmi liggéeyu sëriñ Touba ci boppam am ci boo xam ne dañoo dikk ci xalifa yi ba ñëw ci Cheikh Sidi Maxtaar aussi taxaw ci ndax dafa liggéey liggéey bu am solo dafa ko liggéey yoonu mu rek euh, man gisuma koo xam ne defoon defoon na yoon wi ci gëm li nga xam ne Cheikh Sidi Maxtaar def na ko ndax ba mu fi mu wax en privé ay njabootam tey ji mën naa ko wax ndax ñu ko fekk ñoom ko def mooy du ma leen fi bàyyi dara li ma am lépp dinaa ko jox sëñ Tuubaa te noonu nii mooy li nga xam ne dox sembu ay liggéey yoo xam ne ba ci nekk ay milliards la. lu dikk mu ne ci kon sëñ Tuubaa gi. kon kooku taxawaayam dafa am solo li nga xam ne aussi moom la suñu borom bëgg ci ñun ndax ba nañu jullit yëpp kat ay mbokk ngeen yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi. mu liggéey ci liggéey boo xam ne aussi musuma gis koo xam ne liggéey na ko ci ndax suñu borom dafa barke lañ ko doon def ba mu réussir kon kooku bu fi jógee matagul at bu ñuy màggal faw ñu dellu siwaat ci moom ca lañ ca mujj nag moo di dikkaat ci vision bi nga xam ne Cheikh Mountakha am na ko ak jikkoom yu nga xam jikkoom yu rafet ak ni nga xam ne noonu lay dundee tëjee ko li nga xam ne aussi moo di les pôles de développement économique et yi nga xam ne yoonu murid créé na ko depuis jamono sëriñ bi nga xam ne moo joxoon ndigal maam Thierno Birahim mi mi sëriñ wax léegi di suñu xarit baax a baax di rafetlu aussi moom taxawaayam ndax waxtu nekk bu màggal gi weeru màggal xasee teru bis bi yàlla sàkk day wat téléphone Cheikh Abdou foo toll Cheikh Abdou foo toll na nga xam ne yow foofu yaa fi nekk nekk fi waa Daaru Muxti eh, ndax sëriñ Tuubaa lu mu am rek Thierno faa mu doon ki dara lii damay wax te moom xam ne li muy dund ci eh, ci maam Thierno mooy sama modèle ci ak taalibe bi ak ci lépp kon loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la ba ñuy ba ñuy créé Daaru Muxti nañu créé Daaru Salaam euh, nañu créé tubaab Fall dëkk yooyu yëpp nga xam ne ñi àndoon ak sëñ bi la bi sëñ bi jox sëñ mën Moussa mu mu mu taxawal Tindóodi sëñ Fall mu taxawal Ndindi ma euh, Massam mu taxawal Daaru Karim ba ci xel xelkom ñi nga xamante ne bi kenn ku ne gis na la fa sëñ Sall def barki dem rek foog naa ña nga fa woon di gëm-gëm moo xam ne Sénégal gépp mën na leen a yor ñu def fa yar di fa jàngale di fa jàngale liggéey. kon aussi loolu day day taxawaay yu am solo yoo xam ne yoon mi ngi koy taxaw ci jamono sëriñ bi ba nëga ni dafa waxtu nekk ñu di ko yeesal di ko wan nit ñi defuñ ko ngir puuk réew. waaye dañ koy def ngir nit ngi di ci jànge dañ koy def ngir wan leen aw yoon dañ koy def ngir wan leen exemple. ñu xam ne kat nii la ñu war a mel ndax yoonu mënu moom jaamu yàlla liggéey jàpp sa njàmbur. mooy mooy base bi. mooy base bi ak xam-xam. surtout. <laughs> alors euh, euh, pour être en adéquation avec vos propres responsabilités au niveau de la communication Je euh, journaliste pas c'est sûr. Mhm. journaliste sénégalais, pour couverture mm, comme garantie journaliste communication lan lañ mën a mën a jàpp laata ñu tëj émission waaw li ñu li li li li ñu leen mën a garantil moo di contrat moral bi nga xam ne Serigne Bassirou sas nañu ko mu di bu ñu dikkee bu seen dara manqué nañu ca njëlbéen nga képp koo xam ne war naa dikk bala muy dikk na fekk këyit yi këyit yi tax mu mën a liggéey muy badge yi ak accréditation yi na fekk moom loolu pare loolu mooy liggéey li ñu jot mhm. beneen bi képp ku dikk lépp lu mu bëgg a xam ci sëriñ bi dañ ko boole ak koo xam ne moom ma koy xamal képp ku dikk nañ ko dal nañ ko toppatoo nañ ko berndeel ndax gi la kon loolu moom dañ leen garantil ne képp koo xam ne ñëw nga Touba da nga nekk ci condition yooyu ngir liggéey liggéey boo xamante ne bii liggéey bu rafet lay doon li ci li ci des itam xaj euh, asan juñu na ko léegi dañu am problème ci bi loolu fa loolu fa bu taxaw ci ndax cérémonie bi dañ ko defee ci benn tente boo xam ne junni nit ak genn wàll xañ na ñoo nekk la cay nekk matu ñaari junni nit euh, journaliste yi mat junni kon bu yéen bu ngeen duggoon rek tey mel na ne place ba day fees loolu mënut a nekk mhm. kon aussi faw ñuy xajalante faw ñuy waxtaan euh, ba tax cérémonie moom waxtu wu nekk journaliste yi téeméer ak juróom fukk lañu fay nekk loolu nag kon am na day mel ne am na juróom-ñetti téeméer ak lu topp loo xam ne lu ñu fa nekk mhm. loolu arbitrage laaj mais lépp ci waxtaan lañu koy defee at mu nekk danañ ci wax ba jubóo ci mhm. mais bëgg def benn réunion technique ak mboolem télévision yi nga xam ne dañuy def direct ndax ñoom ñoo ñu gën a mën a en tout cas indil ay jafe-jafe foofu. Mm-hmm. ndax télévision buy def direct la mu fay dugal ci ay nit ak matériel day bari. day bari waaye mënut a ñàkk léegi nag ñu bëgg xool naka la ñuy amee un signal propre boo xam ne comité bi moo koy toppatoo kenn ku nekk mu jox la ko. fekk yow def nga sa plateau ba boo jotee signal bi nu mu la neex danga ko mën a commenter nu mu la neex danga ko mën a dugal nu mu la neex danga ko mën a génne loolu nag amul lenn loo xam ne décidé gun nañ ko mais danañu toog waxtaan waxtaanee ko xool techniquement naka la gën a mën a nekkee ci loo xam ne kenn ku ne da nga ci gis sa bopp gis ki sa en tout cas ñu préserver say intérêt ba ñu man ko def parce que aussi loolu mooy intérêt organisation bi mooy gën a yaatal li nga xam ne euh, ñu ngi koy def muy doon émission spéciale euh, ci euh, Télé Futurs Médias euh, ñuy gëm Serigne Bass Abdou Khoudoss bi nga xamante ni moom mooy porte parole Daaru Moussi di gërëm it Serigne Ahma Ahmadou ibnu Serigne Fallou Serigne Bass Porokhane ibnu Serigne Euh, Moustapha Mbacké euh, naka nu nit Serigne Cheikh euh, Bara Laxaat di ko jegoon trop Serigne Sidi Makhtar di gërëm Serigne Cheikh Thioro Mbacké yor kàddu guy mbind naka nun El Hadj Assane bi nga xamante ni moom it moo fi yëkkati kàddu ci turu group Futur Média jëmale ko ci màggal bi di gërëm Vieux Diouf ci réalisation bi sëñ Abou Mbacké ci coordination bi jàppale ñu trop nag ci jokkoo bi ak kilifa yi nga xamante ni ñoo àndoon nag yéen di nag ber Euh, Grim ak suñu invité euh, de marque euh, di Serigne Cheikh Abdou de yor commission communication et culture ci Magal Touba bi bi ñu lay gërëm rek nga national rek ñu ñu la wax rek di di di di TFM mhm. ak vraiment toute la presse. Mhm. ci de manière générale seen taxay bo xam taxay bu rafet la. di leen rek. Mhm. kenn ku li nga xam ne si sëñ Muntaxa wax na ko ci li nga xam ne mooy avant première bi na ko déglu na ko teewlu te na ko jëfe mhm. bu loolu amee rek foog naa ne lépp dana rafet lépp dana yéwén te lépp aw yiw lay doon asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu jërëjëf Mbacke maa ngi leen ko doon wax eh, ci tàmbali bi TFM tàmbali na li nga xamante ni moom mooy eh, màggalam eh, li koy firndeel mooy na biir dina biir léegi léegi léegi te mu ngi yëngu tey spécialement ci safaar bi nga xamante ni moo xew ci jamono te si loolu la ñuy dox di si ànd ak équipe bi yëpp mu ngi ñëw di ma wutu fii ci programme Télé Futurs Médias jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun incha allah ba beneen jamono.